débrayage wi temps yi ñu ngi seetlu ni affaire bi muy gën a aggravé parce que démb def nañ débrayage dix heures tey grève totale la la plupart des professeurs n'ont pas fait cours te loolu wax fa dëgg yàlla moom arrangé wuñu parce que on est en période de composition euh, samedi la ñu war a commencé te li ñuy arrangé wuñu ñun suñ jàng conséquences yu négatives la indi déjà ñun waa Dakar lañ léegi ñun Thiès lañee ñun suñu yoon nekku si instant ñun dañoo bëgg jàng te gis nga waa élèves yaa ngi ngi fi toog ba tey. ñun ay perturbations yu bëri parce que ñu ngi dañu doon def ay devoir mais devoir yoo ñu jox la génn suñu leçon yi. ba pare prof yi yenn saa dañuy ñëw duñu ñëw. dañoo jógee suñu kër ba fii pour jàng dañuy yeew 6 heures du matin di préparer du ñëw ba fii pour jàng mu ñoo ñëw fii tamit ñuy teg yenn yi tamit ñu toog si mbedd mi di xaar te mooy loolu mu ñu suñu sañoon daal dañuy jaay. métti na torop surtout à l'approche des compositions déjà ñu ngi nii fixe nañ datu composition yi am na prof yoo xamante ne pareeguñu seen leçon yi te am na leçon yoo xamante ne boo moytuwul ci composition bi dafay génn te prof yi entamé guñu sax leçon yooyu noonu tamit loolu tamit problème la ci élèves yi. ndax bu ñu sañoon tey euh, grève bi mën a arrêté ba leçon yooyu noonu ñu mën ko def nga xam ne composition yi bu ñu ñëwee du am benn problème. instant bi am na élèves yoo xamante ne defaguñu premier devoir defaguñu deuxième devoir tamit loolu tamit dafay métti si ñoom ba pare nga def defagoo premier devoir defagoo deuxième devoir nga bëgg def composition doo xam moyenne bi foofu ñaata ngay am par rapport ak bu fekkoon da am da def deux deux yi di nga mën a xam situé yow nan ngay def pour composition bi di nga si mën a génn wala doo si mën a génn. xeetu bi nii lañ mën a tàmbalee révision yi ak am na genre classe yoo xam ni euh, am na cours yoo xam ne defaguñ ko. te loolu duñ duñ ko duñ ko deful classe rek duñ demee composition mën nañoo pénaliser parce que du ñoom nooy génne composition yi ndax composition yi moo ngi jugee au niveau euh, d'inspection fa lay jugee fekkee jugee na foofu te am na genre cours yoo xam ne defuñu ko dañuy dañuy dañuy lor bu fekkee ñoom enseignants yi daa am lu ñuy laaj état na ko jox quoi parce que éducation moom daanaka ab dëkk moom éducation moo si waaw mooy base bi éducation bi inspire nii daanaka ñoom dañu fiy jugee rek te président bi ak gouvernement bi dëkk bi ñun ñoo koy yori seen éducation ak seen culture mu baaxul rek dañuy dañuy lor te ñoom président yi si boppam seen doom yeeg seen sët yeeg lépp ñoo ngi bitim de fa la ñuy jàngee duñ nangu nag après ñoom duñ demee jàngi ñun daanaka seen culture bariwul ñoom lu ñëwaat si dëkk bi diñu diñu diñu diñu diñuy gouverner loolu moom c'est pas normal quoi. non président bi moom vraiment war naa xoolaat affaire bi quoi parce que tamit daa mel ni moom ma see dégg mu prononcé quoi mën naa am nag parce que dégg ma ñëw mais mën naa am mais vraiment. nañu dimbali ñu ne la bëgg nañ jàng trop vraiment surtout terminal yi vraiment yërëm nañ leen trop. may lancé euh, euh, professeurs yi ak syndicats yi bu ñu entamé grève yu mel ni balaa ñu bàyyi nañ na saafaru bàyyi pour l'année année année prochaine mu bañ a amaat. di lancé appel ni président ak ministre de l'éducation xam nga jéem see jàpp quoi ndax ñun ay élèves lañ quoi te tamit suñu yaay ñoo yaakaar si ñun te ñun jàng rek lañ am. wallaahi gis nga di def terminal nii xam nga ñëw ba fii. Euh, am ay grève yii nii dañuy perturbé quoi en tant que élève en terminale xama neexul tamit quoi ñu sañoon dañuy jàng xama am suñu bag ñun moom lenn rek lañ mën a wax ñun moom élèves ñun jàng lañ am te prof yi tamit buñ ñëwul ñun tamit dañu mën a jàng bu fekkee ñoom dafa am ay indemnité yu ñuy réclamer kon donc état bi war na jóg si loolu noonu pour fay leen ko ñun tamit ñu mën a jàng correctement.